السلام عليكم ورحمة الله مبكي ني لين نوي دي لين زيار لين بال حق نان بروم سبحانه وتعالى مبالي ني جيغال حديث اليوم تاي دا فاي واخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يغبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار صحيح البخاري حديث بسبي ينتبي صلى الله عليه وسلم لتي واخ képp ku dox ci yoonu yàlla ba ay tànkam pënd maanaam poussière xam ni tànk yooyu yàlla xaraamal na ko ci safara xadis bi mu ci saxiixul Buxaari ko defee dox ci yoonu yàlla dafa yaatu mu ngi mel ni ki nga xam ni dafay dox jëm ci wuti xam-xam boo xam ni bu mu jàmu yàlla la wala muy dox ci jéego yoo xamante ni bu mu taxawalee lu concerne jullit la mo xam jumaa la mo xam dara la mo xam hôpital la mo xam day seddale azak yooyu yëpp dox la ci yoonu yàlla wala mo xam day dox di aji mag wala muy dox di dem ci borom bo xamanteni borom pour jaamu yàlla mo ko yob nti bi sallallahu alayhi wasallam neena bu doxé ba tànkam yooyu pënd ne yegni tanku tànk yàlla xaraamal na ko ci sabara kon lu mat a sonne rek mooy sonn ci yoonu yàlla ndaxte amul pertement jullit bi wu sonne ci yoonu yàlla te muy dëgg rek ci moom ndax ku lexal na ci tuyaaba bokk na ci jéego jéego siq ay jéego jëm ci jàkka bokk na ci siq ay jéego jëm ci juma rawatina juma joo xam ne daa sori ngay jug njolloor dox aw diir pour man fa yegg yool wu rëy rëy rëy ngi ci yan nañu ko yàlla boole jaay nabi bi sallallahu alayhi wa sallam أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام